kii di Bougane Gueye Dany ma ngay jéem a jaar ci ay tànkam ndax Bougane Gueye Dany mii point de presse bi nga xam ne nag doon na ko amal ni ki tey jii moom yëkkati na ay kàddu en tant que koo xam ne leader la waaye itam taxaw jàkkaar jàkkaarloo ñi nga xam ne nag ñooñu sénégalais yi di wax ne Ousmane Sonko la nga ñu jàngal xam nañu ko mokkal lañu ko kon nag loolu dafay wane ne ki nga xam ne. moom moo di Bougane Gueye Dany lépp loo xam ne Ousmane Sonko defoon na ko moom fas yéene na cee daal di jaar waaye itam la mu war a xam moom Bougane Gueye Dany moo di ne nit mënoo ñëw ne da ngay indi lu bees ba pare bëgg a nuróog nit ñi nga xam ne jamono ji ñoom ñoo fi daal di nekk rawatina sénégalais yi fal leen ci lu yàggul dara war a toll ci sept mois yoo xam ne yàggul dara nga taxaw bëgg ci seen kaw. nag moom Bougane Gueye Dany la mu war a def mooy indi lu bees bu fekkee bëgg naa jàkkaarloog ñi nga xam ne jamono ji ñoom ñoo fi nekk. waye itam mënoo fexé fexé fexé fexe ba nga xamné sénégalais yi jëmono ji dañuy tourner le dos ni nga xamné nak ñom ñoo di gouvernement bi nga xamné ñom ñoo fi nekk waye itam. nekk ci bëgg-bëggu li nga xamné nak nag modi sénégalais yi kon nak lepp lo xamné lu jaadu jaaduwut la nga def ko ci pencu mi. dañu laa war a woo waaye itam teg la ci yoon kon bugaan la mu war a def mooy modéré li nga xam ne moom moo di langage am waaye itam lépp loo xam ne fas yéene na koo wax ci pencu mi jëmale ko ci li nga xam ne nag moom di gouvernement bi fi nekk daf cee war am li nga xam ne moom ay preuve bu ñu ko laajee mu mën a wax te nag gis nañ ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di waa Y'en def li nga xam ne moom moo di point de presse di wax ci li nga xam ne moom moo di jàpp yi nee nañu jamono ji dafa bari lool waaye itam nañ leen li war a xam ñoom moo di defkat yi bu ñu bëree faaw jàpp yu bëri nit du def loo xam ne dafay nekk danger ci pénc mi waaye itam nekk loraange ci penc mi wa ilaa luubal li nga xam ne nag moom moo di alalu sénégal yi la ñu la war a def mooy woolu la teg la ci li nga xam ne nag moom moo di yoon kon nag ñoom loolee nga xam ne jamono ji ñu ngi koy wax jamono ji gouvernement bi fi nekk nekkul di def loo xam ne maanaam dafay jàpp ci nit ki ci jàpp goo xam ne jàpp yaa ma neex la ndax ñoom dund nañu ko ci jamonoy Macky Sall kon nag ñoom li màtt Macky Sall du ñu nangu ñoom mu leen di màtt kon nag ñoom loolee rek la ñu war a xam ñoom waa Y'en a kon loolu la ñu amoon ci jàngat ginnaaw bi nga xam ne kii di buggan Gueye Dany libere nañu ko ba mu def li nga xam ne moom moo di point de presse am jëmale ko encore ci ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ci koo xam ne porté wu la waaye itam sag dem foofee waralu ko kon nag nekk na loo xam ne lu doy waar la wa mbir mi dafay mujj nuroo li nga xam ne nag moom moo di ak tooñaange te ak tooñaange nag bu amee nag faw nit ñi dañuy wax ndax kenn du nangu ñuy teg li nga xam ne nag moom moo di gouvernement bi ay coono yoo xam ne wa ilaa di leen teg loo xam ne ñoom defuñu ko kon nag loolu la ñu amoon ci jàngat.